waaw euh, yi daal bari nañu mooy li may wax wante mënuñoo ñàkk jox priorité li nga xamante ne mooy cadre de vie. cadre de vie ci benn set setal communal d'abord boo xamante ne quartier yëpp koñ yëpp kër yëpp lañu ñu fas yéene boole lépp luy population Patte d'Oie pour que ñu mën cee participer donc xam naa ni set setal communal lañu koy mën a tuddee nii mais xëy na un autre concept sera proposé pour que mu gën a ànd ak li ñu bëgg donc cadre de vie doon na daal li nga xamante ne ni mooy suñu priorité en dehors de ça la sécurité parce que nekk na ci ak maanaam éclairage voirie et tout parce que boo nee sécurité d'abord il faut mu am loolu mais en plus maintenant veiller à à la quiétude des des des, des populations donc loolu nekk na sunu sunu sunu mbébét euh, ci yi nga xamante ne ni bu ñu tàmbalee rek. normalement waa Patte d'Oie war nañ ci gis euh, gis changement j'ai parlé du pavage des rues nekk na loo xamante ni euh, mairie bi tàmbali woon na ko kon ñun danañu dañoo fas yéene yeggali ko ba pare jeexal ko parce que euh, gëm nañ ne avec une systématisation du pavage dans les rues de la commune lépp li nga xamante ni problème mu voirie yi ak yu demee noonu dana gën a yomba mais occupation anarchique aussi danañ ci gën a mën a xeex gën cee taxaw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne daal gëm nañ ni incha allahu rabbi danañu ko danañu ko doxal euh, waaw xam nga balaa nga ciy def moom ci budget day fekk nga gis ko euh, xam naa ni maire wax na lu ma xamul peut-être que li muy wax nekk na waaye damay xaar ba jot ci ba xam li nga xamante ni moo nekk ci liaas bi te loolu moo waral sax bi may signé euh, le PV dama signé avec des réserves réserve yooyu li ko waral mooy dama bëggoon a am lépp loo xam ni war naa ko am comme dossier étudier ko toute la liasse euh, administrative et financière mais amuñu ko donc li nga xamante ni moom la ñu nar mooy jël ko après saytu ko ak équipe bi ma bi may àndal di liggéey xool ba nga xamante ni lépp luñ ci soxlawaat xëy nañu woo ko moom mu leeralaat wala sinon le secrétaire municipal kii la bu ñu gisee lu leer ñu doog a xam après nan la ñuy def xëy na loolu muy wax lu mu anticiper la parce que man kayit yi ñu ma wan euh, lu tolloog euh, téeméeri million nekkagul woon ci ci compte yi donc loolu xam naa ni buñ ko harmoniser rek dana ñu am lu leer lu ñuy teg ci loxo askan taxawaay bi moom xaw ma na lan lay doon de waaye tere na maa nelaw parce que loolu mooy li nga xam ne mooy sunu gros ci vraiment pour préparer l'hivernage euh, li nga xamante ni mooy problème mu assainissement ci ñaari zones yi nga wax doon vraiment un obstacle mais fas yéene nañ ci taxaw xeex ci ànd ceeg askan wi waxtaan ceeg ñoom parce que dafa am ay acteurs yu ci nekk ñoo xam ne loolu seen mbir la j'ai vu dans le PV que le maire m'a partagé am na ci ay société yoo xamante ni sax ñoom ci la ñuy liggéey donc faaw ñu xool société yooyu anam yi ñu mën a àndaateeg ñoom gën a renforcer mais ci lu leer dina doon loo xam ni dana raw lu baree baree bari lañ daan def waaw jërëjëf waaw tàllal loxo rek comme li ma wax tàllal loxo sans distinction loolu wax naa ko te euh, mën naa ko delluwaat euh, euh, baamtu ko li may ñaan tàllaluma loxo yam ci damay ñaan ku Padois soxal ku bëgg Padois Padois fal la ba nga nekk conseiller bul fàtte ni Padois moo la fal dëgg la nag moo tax ci sama discours wax naa ko. pas de coloration politique dëgg la ku ne am na foo bokk ndax man mi maay présidente nationale jigéenu Pastef nekk ak Ousmane Sonko mais du ma wane benn yoon fas yéene wu ma ko wane benn yoon ci biir conseil communal bi léegi nag li ñu bëgg mooy euh, un engagement patriotique maanaam Padois jiitu ci suñuy ité Padois kese doon suñu ité parce que li ñu bëgg mooy jag jege leen jariñ leen te jàmmal leen kon loolu parce que Padois rek mooy nekk sunu sunu patron ah incha allah. bu ma koy wax c'était dans le sens propre tagal ci mairie bi pour doon ci biir mairie bi mais dafay am lu ñuy changer ci mairie bi li muy changer ci mairie bi nag dañuy ñaan yàlla mu doon ci valeur dañuy ñaan yàlla mu doon ci cadre de vie parce que bëgg nañu changer xar kanamu mairie bi wax naa ci ak euh, monsieur le maire léegi nii y a des zones yoo xamante ne nii faaw ñu am nuñ ko laalaatee xam nuñ xool nuñ koy defaree ba ku xool mairie Patte d'Oie kat xam ni fii mooy mairie Patte d'Oie te jigéen a ko yore waaye loolu tamit euh, liñ ci liñ ciy jublu mooy wane rek ni jigéen magasin wu yàlla la comme je disais sànq yàlla da koo yan loo xam ne moom dong moo ko antan ndax jigéen mooy nekk ci kër mooy nekk ci bureau mooy nekk ci euh, euh, ci ci liggéeyam ñu wëlbati ko dénk ko mairie mu téye lépp ci loxoom te dara du ko jaaxal loolu nag c'est une touche qu'on va apporter parce que mooy li ma doon wax euh, jàpp nañu ba jigéen ñi tey ji doon nañu vingt et une yoo xamante ni tey ñoo nekk maire ak président de conseil départemental loolu nag dafa am ñun mission buñ ci gis parce que étoile bu tàkk la jigéen boo ko dénkee lu mu mën di demee di nga gis différence loolu nag la ñuy xaar ci jigéen ñi nga xam ne dénk nañ leen donc y aura à la kulli un grand changement dans dans dans la gestion de nos de nos li ma mën a li ngeen mën a xaar man mooy information y aura une communication directe y aura une communication permanente et y une communication constante loolu mooy lépp lu ñu nar a def dana feeñ parce que mënuñu wax ci lu ñu jëlagul dara. il faut ma xool dossier yi moom li mooy li ma la wax waaye li leer ba leer mooy cadre de vie ak voir yi sunu priorité la danañu ànd waxtaan ak ñëpp parce que ñun dañoo gëm ne acteurs yi nga war a waxal pour mën a jëm yegg fi nga jëm bu dee ña ne ca foofa danañ leen ci woo ci waxtaan ku mu mën di doon ak zone bu mu mën a doon ak domaine d'activité bu mu mën a doon danañu ànd waxtaan ak ña ca nekk te bari ndax bari na du foofu rek y a beaucoup de problèmes dinañu ànd waxtaan nañ ñi ko yore ba nga xamante ne dinañu ut saafara te it décision bu mairie bi di jël ñu xam ne mooy décision bi gën ci ci ci askan wi